wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki yi nga xamante ne bi ñoo ñuy topp ci télévision Lamfal TV ak ci rajo yi nga xamante ne bi ñoo ko seq ci dëkk bi dañu bàyyi xel itam ci fi nga xamante ne bi moo di surtout jumaa Tuubaa ji e, ñu ngi am mbégte di ànd ak fii ci jumaa ji ci seentu weer wi noonu ñu koy baaxoo di amale saa yu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ñeent jotee ci weeru wolof danañ àndandoo ak commission bi xam ne sëriñ Mouhamadou Mamoun Bousso moo ko jiite sëriñ Abdou Diop imam yore kàddu gi ñu ànd ak waa daayira Muxaddamatul Xidma waaye mu sëriñ Abdoul Khoudous ak euh, sëriñ Modou Mbacke xam ne moo ñuy jokkale ak euh, représentant xarit Diallo mu di nekk ci région yi euh, bu ñu sëlmalee turist nag rajo bi ne sëriñ ne nañ séntu weer wi te lu waaye xam nga ne yëg na ko su ko defee ñu génn nag ci buntu soow bi jàkkaarloog télé Alaaji Babacar Kébé ñu ko di ko séntu nag ginnaaw bu ñu ko séntoona ba ci kanam danañ jokkoo ak kër Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, bu ñu fa jokkoo ba noppi nag ndigal lay bàyyi ko ci Serigne Mountakha rek mooy la Serigne Abdou Diop di jottali comme ni ñu si déglu Serigne Abdou Diop imam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu si leen siyaare te di leen xamal ni ko <coughs> Serigne Fallou Gora si la ñu waxee rek maanaam ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yi weeru ñu sëriñ bi leen yebal si jumaa ji ñu ci wax ne nañ seen tuwéeratul ci waaye xam nga ñëw yëli ko bu buñ ko wax yéene bu noppi dañuy ànd ak commission bi nag toog ci soowu di séentu bi nga yàlla dogal nag bi ñuy séentu ba nga ba waxtu wi nag ñoo ne jot nañ xibaar yu baree baree bare yu wane ko ñun ñi di séentu yi yàlla dogal nag séenuñ ba ban ko defee nag lan daal di jokkoo kër sëñ ba ndax loolu lépp luñ ci añet du tee dañuy digg ndigal rek ban de ban jokkoo kër sëñ bi nag sëñ bi joxe ndigal kon xam ne suba mooy benn fan suba ci ajjuma ji gàmmu gi mais comme que ñëpp xam xam ne weeru feeñ na suba ci suba ci ajjuma ñi mooy benn fan weeru gàmmu yi yàlla ma yàlla may xéewal ak jàmm ak sutura ak teraanga te tey tey sant nag suñ Fallou Gallass ñoom ñii nga xewar rajo bi xam ne boobu sëñ Sall yi nekkee ba ni nga ni ñoo dañuy ànd ñoom ci liggéey bi ak waa daayatu Muxaddamatul Xidma ñi nga xam ne ñoom ñoo ci jàppale bu baax ci wàllu wàllu jokkaloo gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ak mboolem rajo yi rek ci daraja Sëriñ Tuubaa waaw kay bisu waaw waaw bisu at bisu gàmm gën altine la bët set di talaata. waaw bi euh, euh, altine mooy mooy fukki fanu ak benn. di bisu gàmm gi guddi gi di fukki fan ñaar di di di talaata. mooy guddi gàmm ga. kon ñëpp xam ci rek. kon ñu ngi ko déggandoo rek euh, altine mooy doon bisu gàmm gi ñu yendoo ko bu ñu ko fanaanee ba bët set di talaata incha allahu rabbi kon weer wi feeñ na suba ci àjjuma ji moo doon benn fan incha allahu rabbi seen mbokk taal bi Fallou Bala Sylla ànd na ko waa commission euh, séntu weer wi ci njiitul daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah